victoire bi presque on a largement mérité on a on l'a largement mérité quoi parce que match yi boo xoolee occasion yëpp ñoo ko am peut-être dañoo réalisme devant les buts mais mënoon nañ leen dóor 5 à 6 0. oui la suite euh, bon match bi tay la après jeex na quoi ñu ngi préparé waat peut-être suñu match peut-être contre Diéguy Penj ou bien Siré Siriba après match tay bi Gazelle on fondé depuis 2006 musuñu leen gagné. 2006 ba léegi ça fait des années yooyu suñu bête noire leen mosuñu leen woon gagné comme Barça ak Paris ak ak ak Bayern mais malheureusement tey ñoo leen gagné 2-0 victoire boo xam ne ñoo ko mérité quoi. waaw waaw waaw loolu day am xam nga premier match bi ba pare ñun football bi euh, peut-être mën naa ne ay étudiants lañ quoi bi nii lañ koy pratiquer premier match j'ai reçu beaucoup de critiques quoi mais ak critique ñooy ànd mais liñ lay critique c'est c'est pour c'est pour ton bienfait quoi après travail war naa ñëwaat te incha prochain match di ngeen gën gis beneen changement ak beneen amélioration. waaw ren objectif yi pas comme ni mu ko waxee rek daf ñu mën nañu repos bii boo leen dugal repos la moom 4-0 sax la la préparé woon mais malheureusement on a gagné 2-0 waaw li ma wax